wàccee ko ci sëriñ daara bi nga xam ne bañ la koy jox benn xarab nekkutoon ci sa bopp bi mu lay yendul di la fanaanal di la fajarlul di la guddil ba yàlla def lii mu def ko ci yàlla na ko yàlla gën a dolli te barkeel ko aayaat yi mu doon jàng yépp nag dafa ci nettali yonentu yàlla Zakariya amoon na soxla boo xam ne yaakaaroon na ne dootul fajooti ndax am na téeméeri at ak ñaar fukk bi muy am ak doom soxnaam am téeméeri at yu manki ñaar moom fi mu tàmbalee ñaan doom booba juróom-ñett fukki at la am booba soxnaam juróom benn fukki at yu manqué ñaar la am mu jàpp ne ñaari màgget ñi boroom juróom ñetti fukki at ak boroom juróom juróom fukki at yu manqué ñaar doom waru ci mën a jaar mu naagu woon ci ba ñaana ca waaye keroog ba mu demee di yóbbul saydatuna Maryama ñam fekk ci saal bi fur wi boo xam ne amul ci dëkk bi fur wi noor mu fekk ko fa ci jamonooy nawet fur wi nawet mu fekk ko ci jamonooy noor ci la ne ko yow de ab wëlliyatu nga te man mii ab yonantu laa yàlla mi lottu ci jox la fur wi noor ci jamonooy nawet lottut ci war ma mën a may doom ak li may màgget màgget donte am naa juróom-ñetti fukki sama soxna am juróom-benn fukki at yu manqué ñaar mu tàllalaat loxoom beesalaat yéenéem dogu ci yàlla di ko ñaan doom xam ne yàlla mooy maye dara jafewut ci moom li ko ko tax a def lépp nag mooy gis doom ji mu yar ni mu yiwee ni mu sellee ni mu dalee muy sayyidatuna Maryama te jurut ko ki mu ko jur moom ak tàntaam mooy denc tàntaam moom Zakariya mooy denc tàntaam muy Ishaa xanatu jur kii di Maryama Ishaa moo war a jur Yaxya moom nag ndeysaanam euh, saa yoo gisee doom ju baax rek sa xel nekk ci doom mu takkaat ndiggéeyam tàllal loxoom ne yow yàlla daal maa ngi lay ñaan doom bët bu set bu xëyee ñaan bu gontee ñaan balaa tëdd ñaan bu fajaroo mu ñaan fim ñaanee ba fi muy amee résultat distance bi ñeent fukki at la moo tax yàlla kenn du ko yàkkamti ku bëgg a jëflanteeg yàlla boo yàkkamtee demal waaye jamono ji nag li yàq suñu àdduna bi ñun ñëpp mooy yàkkamti dangay ngay ñaan mbaa ngay ñaanlu mais dafa mel ni daal yaa ngi toog di ko bàyyi xel sa ñaan gi ak sa ñaanlu gi mel ni horaire boo xam ne sa yóbbante dafa cee nekk maanaam boo amee yóbbante boo xam ne mënul fanaan mu nekk ci horaire heure bu nekk oto bu riir bu nekk da wax ndax orier bi ñëwagut yàlla nag kenn du jëflanteeg moom ci noonu boo yàkkamtee rek mu bàyyi la ab yonantoob lëmm benn soxla mu sax ci ñeent fukki at di ñaan yàlla xaddiwul ba ñeent fukki at ya matee mu tolloog téeméeri at ak ñaar fukk ci dundam téeméeri at yu manqué ñaar ci dundu soxnaam jibril ñëw fekk ko ca jàkka ja muy war a taxawal julli gi mu ne a ah, sa borom nee na dana la bégal ci doom doom jooje nag mooy indiwaale turam yaxya lay tudd doom jooje muy indiwaale mayam ki ko ëpp may di doomi tàntam di isa dana ko dëggal doom jooje mooy indi mayam sang piir lay doon ku rafet jikko doom jooje li yàq ak càng muy lekk àll li jàmbur ak topp jigéen ñi dana ci mucc doom jooje yonantu lay doon bokk ci ñu baax ña doom ji ku ko am jël moom lay wax si nii moo tax mu ne hunaalika foofale daa la ñaanee zakariya zakariya mu ñaan rabbahu boromam xaala wax na ko di ko ñaan ne ko rabbi yow sama borom xëpp yàlla nga may lii ma mi la dun ka fa yow duriyatan njaboot tayibatan bu baax duriyatan doom tayibatan bu yiw innaka naka yow yàlla mi may ñaan samiu du'a yi yaay déggaakoon ñaan yi ba mu ko ñaanee fa naadathu xoo na ko almalaikatu jibril fekk wa huwa mbir moomu moom qaa'imun aju taxaw la yusalli di julli fil mihraabi ca jàkkaam ja jibril woo ko ne ko am na laaha naka yàlla ñenn nga jàng inna laaha yu bashiru ko dana mu bégal la bi yaxyaa ci yaxyaa yaxyaa moomu lay tudd dana indiwaale mayam mu saddiqan mbir mu muy aji dëggal bi kalimatin ci kàddu mi ne laay gu baxee koo ci yàlla ndax ci kun rek la ko yàlla amalee mu yonentu yàlla Isa yaxyaa moomu wa sayidan sang lay doon ku rafet ko jikko waxasuran kuñ gaw lay doon du du du du du maanaam jeng jëm ci jigéen ñi doon te ko wa nabiyan ab yontu lay doon mina na bokk ci ñu baax ña lii la ko yàlla wax kalam dal kon moom tamit fi ko ñaan fi ko nangu ñaan gi fekkee palaasu nanguwaayu ñaan la palaasu nanguwaayu ñaan mooy jàkka boo demee ci jàkka del julli boo jullee loo yàkkamti yàkkamti tàllalal say loxo ñaan mooy connexion bi nga xam ne moo ñuy jokkale ak makka moo jur jàkka yi ndax yonent yàlla ibrahim bi mu tabaxee kaaba gi ba mu pare dafa jël garaawaay ba yépp mu jóor ko ci benn yi laaj yàlla fu ma koy tuuri yàlla ne ko tuuri warul la ci jal ko rek nga wan ko gannaaw ba mu ko wanee gannaaw guddi jot ngelaw ñëw yëkkati ko tasaare ko ci àdduna bi fu doj wu mag daloon balaa àdduna bee tukki dañ fa tabaxal jumaa yàlla fépp fu doj wu ndaw daloon balaa àdduna bee tukki dañ fa tabaxal yàlla jàkka jàkka yooyu nag bàyyeekoo ca doj yooya ak jumaa yi looloo waral booy julli ñu ne la dàkkal kaaba gi nga xam ne mooy cosaan la wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum satarahu loolu mooy cosaan la waaye jàkka lépp benn place moo ci am tur place bi ci am tur moo ci moo ci gën a dansé jàkka jàkka rek place yëpp kenoo yëpp yëpp waaye benn place rek moo ci am tur mooy moom la alquran yusalli fil mihraabi mihraab mooy place bi ilimaan di taxaw moo gën a dansé ci jàkka ji ndax boo jëlee baat bi rek moo la koy tekkil boo jëlee mihraab mustaqun min al harb mu ngi bàyyi ko ci baatab xare moo tax bu la yàlla nattoo ñu jiital la nga taxaw foofa jiite nit ñi bëri na koo jiite ku la raw bëri na koo jiite ku la ëpp cër ci yàlla bëri na koo jiite ku la ëpp maqaama ñooñu ñëpp ñu jël seen roox yi branché la ko soo amul leer boo leen attanee yow yaa ngi nekk douze waltu ñoom ñu nekk vingt quatre waltu doo ko fekkee moo tax imaama ku koy xëccoo da ngaa xamul li xew ñoom luñ manqué lekk seen julli ñu yen la ko luñ ëppale tamit ñu yen la ko diirab fi nga ne allahu akbar ba nga ne asalaamaaleykum seen rooxu yépp ci yow lañ ko branché boo leen attanu du sotti moo tax baat bi ñu tuddee ko xar bu place la place u xare la lu tax bis boobu ba taxawee seytaane taxaw na di xaree ak yow sa bakkan di xareeg yow adduna di xareeg yow bànneexu bakkan di xareeg yow ñoom ñëpp ñu ngi lay jay nele li nga raw ci dëkk bee tax ñu jiital la li nga fi gën moo tax ñu jiital la li nga fi ëpp askan tax ñu jiital la li nga fi gën a ragal yàlla gën fee juba tax nga jiita ñu jiital la yow nag da war a xeex ak ñoom weddi ko ne ko seytaane waxoo dëgg maa gën a xiis ci dëkk bi maa fi gën a réer maa fi gën a xamadi looloo waral ki xam te xam tam te nekk kenn rek la kookaay kañ mu ne yàlla mu ne ko kon dëggal ko moo tax mu ne allahu akbar da ngeen maa jiitale maam màgg bee màggu ma yàlla rek a màgg yàlla ne la miim ko nga miim ko mu ne ah waxal sa maamu ca gannaaw yëpp nañ la miim le ñoom ñëpp ne la allahu akbar ci sa allahu akbar ji mu ne jàngal fatiha ak saar dolli miim gi nga pare mu ne wane ko waneel ne màggoo fatiha saar jeex saar jeex nga nga nga maanaam nga sëgg yaa ngi sëggal ki la gën a màgg mu ne doyut de boo paree sa jëb bi nga gën a fonk ak sa juróom-ñaari cër yi ne ko ràpp ci suuf ba nga xam ne du ko dara nga jël sa jëbeeg bakkan ya ñaari ténk ya ak bat wóom ya ak cet tànk yépp ne ko ràpp ci suuf màggal yàlla kon nag nañuy bàyyi xel place bi nekk palaasu xare la ci sa bakkan palaasu xare la ci palaasu xare la ci àdduna palaasu xare la ci bànneexu bakkan ñeent ñii ku leen gañewut waroo jiite nit ñi mu jeex kon aaya jooju loolu doon wax jeex na léegi nag yonentu yàlla Sakariya dafa bëgg a gën a wóorlu mag mu yéex a am doom ba am téeméeri at ñaar fukk buñ la waxee danga am doom ah léeg-léeg am na foo xam ne ba fa bàyyee ko doo ko gëm mu bëgg na gën a leer lu mbir mi ci yàlla ne ko naa d'accord naa wax nga nag ma may doom damaa bëgg nga wax man loolu du mën a amee dafa bëgg a bàyyee ko ci ilmul yaqin ñëw ci aynul yaqin li daloon Ibrahima ko dal rek yonentu yàlla Ibrahima xam na ne yàlla mën naa dekkil ku dee mais dafa cee bëgg a teg bëtam ne arini kayfa tuxyil mawta qaala awalam tumin qaala bala walakin li yatma inna qalbi moom tamit yàlla bu ne ko mën naa laa may doom danaa la may doom jibril moo la indil message bi xam na ne wér na mais dafa bëgg a gën a wérlu xam nga nit boo amee soxla piir ñëw wax la ko nga ne ko dégg naa ko bu weer wi dee naa la ci jàppale bu bàyyee bala vingt cinq nag dafa lay woowaat ne laa am mbaa fàtte woo ma ci liñ waxoon bu di gën a laablu su boobaa nag boo ne ko ah bàyyil rek boo demee daal bàyyil bu la cinqué rek ñëwal bàyyi naa la naa la jox deux millions xelam day gën a dal loolu moo dal sa kër yaa dafa bëgg mu gën a leer moom lay wax si di xaala sa kër yaa ne rabbi yow sama borom année yakunu naka lay nekkee lii di ma ñaal xulaamun waqat balaxa ni te mbir moomu jot na ma alkibaru ak mage am naa téeméeri xat ak ñaar fukk wamraati sama soxna si aqirun dafa jaasir qaala sama borom ne ko mbir mi de kazalika noonu lay demee dogal na doom ki ñaari màgget allahu yàlla mi koy dogal de yafalu mooy def maa yashaaw la ko soob te li ko soob bokk na ci dogal doom ki ñaari màgget mu ne ko d'accord naa léegi wér na ne danga ko defal dama bañ ngénte li bett ma bu sama soxna ëmbé na ko téla xam qala mun rabbi yaw sama borom ijaal yàlla nga def li ñaal ma aayatan màndarga muy tekki ne sama soxna dafa ëmb bëgguma ngénte li bett ma xaala sama borom ne ko ayatu ko sa màndarga muy tekki ne sa soxna ëmb na allah tukallima moy nga ñàkk mëna wax ak naa sa nit ñi salasata ayaamin ñetti ñetti ñetti bëcëk yu and ak ay guddeem soo mënta waxati lu lu jëm ci walu yalla rek xamal ne sa soxna ëmb na moo tax mu ne ko salaasala ayaami lu dul maanaam ñetti bëccëg yu ànd ak guddeem illa ramsan lu dul junji waaye nag li ngay man benn rek a ci des mooy tudd yàlla ak sàbbaal ko kon moom nga defee nag waskur na nga tudd rabbaka borom sa kafiran lu bëri moom rek nga defee wasabbih na ngay julli bil ashi ci waxtu ngoon wal ibkaari ak ci waxtu suba teel léegi daal lii nga dese xam nga lii miracle mënu ko passé ci ngay dégg ne làmmiñ du wax mais coobare yàlla mooy wax mi ngi ak làmmeñ mën a wax waaye mënul wax wax ju waxuwul wax ju waxu rek la mën a wax bu bëggee sàbbal yàlla mën na koo wax bu bëggee jàng tawreet mën na koo wax lu mu bëgg jëfandikoo lu jëm ci yàlla rek mën na ko buy julli mën na ko buy sàbbaala ya ci àddu mën na ko waaye teg leen reer bi sax mënutul koo waxati indil ma ndox ma sangu mënutul koo waxati damaa bëgg a naan mënu ko bu ko bëggee def rek dafay junji yàlla ne ko boo demee ba mën a too waxati wax ju waxuwul nga defee wax ju waxu kese diiram ñetti fan xamal ne sa soxna ëmb na préparel bu la ngénte li bett léegi nag bu doon jamono ji sa soxna ëmb na moom sas fam ngay seeti rek bu ko seetee mën la mi ngi ci deux mois mbaa trois mois léegi-léegi sax seen xam-xam màcc ba mu yegg ci ne góor lay am nag nga dem xotti wàlle yëxëy góor di ko xaar kon loolu lépp médecine dafa avancé waaye booba nag moom médecin wu médecin yi moo ko informé muy yàlla ne ko sa soxna bu tollee fii xamal ne booba nekk na jigéen ëmb na kon nag liñ cay déggee comme wax dafa jafe bu la ko yàlla xeñoon dana la jaral li nga am ci alal lépp nga joxe ko te mën a wax ku yàlla joxoon tey fukki milliards te mënoo wax wallahi bu ñu la laajee fukki milliar yi nga joxe ko te mën a wax waaye bu la ko yàlla joxee te laajul la dara li nga war a fayee yàlla mooy sa làmmiñ wi dee ci wax wax ju waxu noppi ci lépp luy wax ju waxuwul bul ci jëw bul fen bul xaste bul rambaaj bul nekk ci réseaux sociaux yi di yàq deru nit ñi bul jël ay montage bul publier lu amul njariñ nit ñi nag dañoo sawar ci lu bon man dafa loolu daal jaaxal na ma lool Sénégalais yi mënuma wax ne bon nañ de waaye bëgg nañ lu bon lool bëgg lu bon a tax audio bu nit def bu la ko yónnee muy lu bon rek mu ne ko maa ngi la koy envoyé yow tamit nga fexe ba envoyé ko groupe yu xam ne kenn xamu nañ toll moo tax nit ñi sax bu ñu bëggee am bës dañuy fexe ba wax lu bon rek boo fi nekkoon di saagaaka saaga balaa ngoon a jot saaga wi tas àdduna bi yëpp ku ko jot envoyé ko sa morom waaye su fekkoon ne boo ko jotee influencé ko jëlaat wax ju baax fexe ba yónnee ko ka ko waxoon su boobaa ala kulli haal euh, lu baax dana gën a yaatu waaye nit ñi daal bala ñoo gën a sawar nga fekk nit ku baax ku nga yëkkati kàddu yu bon teg ko ca deram ku ko jot rek dégg nga diw li nga ko wax dégg nga nangam ak nangam ak nangam mel ni yow da nga caa mucc ka koy wax nag ñaareel dafa yéene woon ne ah kii de fii lay jaaree xiis man ma jaaree fi xéeg waaye am na koo xam ne bu wàccoon yow tax nga xéeg mukk loolu la yàlla dogal ku yàlla xas bind ci xées bu ñëpp xéeg bu ñëpp xeesoon yow doo xéeg ki yàlla bind ci xéeg soo koy jéem a jël sa ndox mi ne yaa ngi koy sotti ca tàkk-tàkkal ba day sot day sottee day sotteeku pétrole tàkk-tàkkalab xaadimu rasul tàkk-tàkkalab seydil haji malik tàkk-tàkkalab mawlaay haji abdallah tàkk-tàkkalab cheikh na tijaani ku ci bëgg sotti ndox day sottee ko pétrole gën a tàkk jëm kaw yow ngay gën di xiis ñuy gën di xiig rek dara nga ci mën kon loolu mën nañ koo déggee ci aaya ji fii tamit ci aaya ji dafa ne waqad balaganil kibaru boo demee ca maryama waqad balagtu ah waqad balagtu waqad balagtu kibran moo nekk ci Maryama fii mu ne waqat balaganil kibru kon ñaar yëpp ba tey benn la bu mu ci nekk ñoom ñaar jumlay xaaliya la su ko defee tamit aaya jàngook bi ci tegu euh, léegi nag yàllaa ngi wax seen julli ñaar la benn ashi wal ibkaar fu ñu waxee ashiyu rek mooy li ko doree zawal ba jant bi so buñ ne ibkaar mooy fi fajar xaree ba yoor yoor foofu lañ daan julli ñaari rakkaa suba ñaari rakkaa ngoon loolu moo doon seen sariya bi moo tax an am na beneen aaya bu ko dëggal an sabihu bukratan wa asiyan moo ko dëggal loolu moo doon seen sariya moo tax yonantu bi sallallahu alayhi wa bi mu defee mi'raaj ñu jox ko juróom fukki julli muy dëpp ba fekk yonantu yàlla Muusa ci deuxième asaman boko ko jëlee comme ci kaw nga déparé mais bu ci suuf moom mooy juróom benn asamaan dafa ne ko demal sama xeet wee xëppoon doole sa xeet wi nyari lii mënuñ ko woon ñoom ñaari julli rek suba ñaari julli ngoon te dafa tëwoon yonent bi dem wàññi lu ñuy des juróom mu ne ko demal ñu wàññi luwaat ko mu ne ko yeras naa kuñ joxoon juróom fukk ngay wàññilu ba ki juróom ngay wàññilu hat Nyom ñaar ñëpp ñu dégg kàddu yàlla maa yu la daya su ko defee nag mu ne am daytu faridati wa xafaftu an ibadi wa hiya xamsun waaye wa hiya xamsuna ndax man jaa bil xasanati fal waasru amsaaliha mu jeex waaye nag képp ku baax bëgg a bokk ca ña gën bañ a bokk ca ñan gën wax naa ko ba tàyyi boo yeewoo ba ba ngaa tëdd sa war ngaa fexe ba julli juróom fukki julli yi moo indi naa fi lay boo yeewoo rek njëkk la julli ñaar rakkaay fajar dool dool li ci ñaar rakkaay suba am nga fay naa ngay ñëw muy du yor yor riwaaya am na bu ne juróom-ñetti rakkaa gis naa beneen riwaaya bu ne fukki rakkaa ñaar moo ca gën a bëri waaye bi gën a siiw mooy juróom-ñetti rakkaa gën a bëri ñeenti rakkaa gën a gën a gën a digg doomu ñaar rek di benn sëlmal gën a tuuti yonent bi ne julli gu am solo la kenn ku nekk war nga cee góorgóorlu dañuy tiitloon nit ñi nag naan ku ko commencé doo ko bàyyee ti déedéet njuumte la Tirmisi yu xadis boo xam ne moo ko génnee ci yonent bi moo ko solo kon ci yonent bi mu ne yonent bi ko def bañ fan du ko ko mel dutu ko defati kon boo defal boo amul jot bàyyi loo rek la julli googu nga jël ko def ko ca njëkk tusubaar nga dungi ko ne gan ak bëccëg la nga dalalee ko ñeenti rakkaa muy dem nga julli ko balaa dem nga ko nga nga nga gatandu ko julli muy jërul ci malik kenn du ko gunge buy timis timit kenn du ko gatandu ci malik boo gisee keneen def ko ci yeneen mazahib bu ko weddi ci yi malik tànnut ko suñ mag timit ko timis ñëw nga ne ko ganab guddi nga gungé ko juroom benn rakkaa boo xatee ba xat ñeent bu xatee ba xat ñaar cheikh na tijaan ne bu la faatee ba def nga jangee ko juróom fukki fatih ngir ngir ngir ngir yóbbaloo ko ko géexe ñëw noonu nga doora def nak nawaafili fukki rakkaa ya doora a indi safaak witar boo ko calculé lépp muy juróom fukki julli kon nag loolu am solo bu fi naan julli lañ ma man du ma ca dara du ko du ko gatandu loolu tamit baaxut nañ ci taxaw ndax kat ci farata yi ci lañ lay donee jullit waaye ci naafila yi ci la ñuy matee jullit te li naafila yi mën a maye farata mënu koo maye donte mooy kilifa kon am na solo aaya ji tegu ci dafay wane tànn gi yàlla tànn saydatuna maryama ci jigéeni jamonoom ji jamonoom lépp mooy seen sang ci jigéen ñi yonentu bi wax na ko alquran wax na ko waaye jigéeni jamono yépp boo leen tànnee juróom ñoo ciy sang jigéen ñi juróom juróomi sang lañ am saydatuna maryama saydatuna asiyatu mi doon soxna firawna saydatuna xadijatu saydatuna fatimatu ak sëydatu saydatuna ah, aishatu ci yeneen riwaaya yi waaye riwaayaat yi gën a bëri aishatu duñ koy boole ci juróom ñi bu matee juróom rek buy ñeent rek aisha bokkut waaye ñaareel buy juróom rek nga fekk ci aisha juróom ñi ñëpp nag buñ dajee ñoom juróom yi ku ca gën boroom xam-xam yi werante ci ñii ne Maryama gën yàlla may na ko mu am doomi yonantu ndax juróom yi moom kenn ci am doomi yonantu moo ki jur yonantu yàlla Isaa mu yonantu moom kenn moo ci am mayak yàlla dafa moom xitaab comme ni mu ko defee góor ñi ku jàngal Quran yaa Muusa am na mais yaa Maryam moo am na moom kenn moo am alquran tudd turam ci turu jigéen alquran li muy réere benn turu jigéen amu ci ku dul sayyidatuna Maryam lii tax ñu ne moo gën ñenn nga ne déet aseetoo ko gën lu tax ñu ne kooka dafa baax bi baax jafee baaxee fi baax jafee xam nga nga baaxee ci koo xam ne mi ngi yor pouvoir di firaw na am doole nga ak ak di xoote naan wa ana rabbukumul axla nga mën a wan gannaaw loola ak pouvoir bi mu am mu lay mbugal nga mën a mëñ mbugal la gëm loola yombut looloo waral ñu ne asiyatu ku baax la ndax ñii ñëpp bi ñuy baax booba baax yomb na fi ñu baaxee tamit foofa baax yomb na fa waaye ki nekk ci loxool ki gën a bon ci jamono feeñ tamit ki jamono ji gën a doy waar yàlla may ko mu baax ba war a bokk ëllëg soxnaa yonantu ba ñu ne kenn gënu ko ñu ne xadijatu tamit ñenn ñeneen déedéet xadijatoo gën lu tax bi ñëpp weddee sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom moo ko gëm yëkkati alalam jox ko ko dimbale ko ci woote bi ànd ak moom ñaar fukki at ak juróom yu manqué ay weer juróom ñaari bant la yonent bi am juróom benni bant yépp ci sayyidatuna Xadijatu la am waaw waaw ku yonent bi denc doy na nga neel yemul ci mu jur yow ay doom juróom benni bant kooko teraanga mënu koo passé ñu ne moo gën ñu ne déedéet Fatimatoo gën imaamu Malik nag moom rek laa tànn moo tax moom laay tudd moom dafa ne Fatimatoo gën loolu la gëm ñu ne ko lu tax mu ne ñi ngeen tudd ñëpp ñu am fatimatu am na ko te fatimatu am na ngëneel luñ amut ñu ne ko ban ngëneel mu ne yonantu ko jur te ñi ñëpp juru ci kenn kenn du malik moo lu malik wax ci diina ji bu ñeboo di ko ci tax suñ mag ñi ko malik dafa tànn wu de dafa tànn wu nañ ciy bàyyi xel kon loolu la ci malik atte su guddutoon nag danaa la wax ki wax ne xadijatoo la ak ñan la kii ne Fatima kii ne Aysatoo gën kan la ñan la waaye dama lay wax li Maalik wax rek mu yóbbu xale ñi ci des ñëpp kon nag li tànn gi yàlla tànn euh, sayyidatuna Maryama ci jigéeni jamonoom moom lay wax si nii moo tax mu ne wa fàttalikul id qaalati ba waxee almalaykatu jibril ne yaa maryamu hé yow maryama inna allaha naka yàlla istafaaki tànn na la ngay liggéeyal baytil maqdis wa taxar ki laabal na la ci reegal wa taxar ki laabal na la ci jikko yu bon yi wastafa ki tànn na la ala nisaa'il aalamiina ci sa kaw mindee fi jamono ji ñépp yaa leen gën yaa maryamu hee yow maryama ukunuti na nga sax ci jaamu li rabbiki ñeel sa borom na taxawaay yay yàgg wasjudi del sujjóot warka'i del rukkoo maa raaki'iina ànd ak way rukkoo ña kon gis nga ko moo am dara daraja yàlla jaar ci turam di hooteeg moom yaa maryamu yaa muusa demeet comme ni yeneen yonantu yi rek moo tax ñenn ñi sax di wax naan ab yonantu la njuumte la yonantu yi jigéen xamu ci góor rek yàlla wax na ko ci alquran mosumaa yónni jigéen gu jigóor rek laa mosumaa yónni jigéen góor rek laa mos a yónni mu ne ko tamit tànn na la nga bokk ci ñee liggéeyal ba baytul maqdis te loolu yow yaa ko mos a am jigéen bu nekk baytul maqdis di fa liggéey ñeenti junne nit la fa fekkoon ñëpp góor lañ moom moo ko mas doon ci jigéen moo ko moo ko moo ko njëkk a doon moo ko mujj a doon loolu moom rek ko am waaye ña ca des ñëpp góor lañ daan doon mu ne ko laabal na la ñu ne daanul bis reegal laabal na ko tamit jikkoom dafa rafetoon lool laabal na ko ci mboolem luy luy salte ak ak tilim tilim xissiya ak maanawi yëpp mucc na ci mu ne ko mu tànn la tamit nga nekk sangab sa jigéeni jamono ji yëpp yaay seen ko yàlla defalee da nga koo war a santee jaamu ko moo tax ba mu ko waxee li mu ko defal ba pare nag mu ne ko yow tamit kaay ma wax la li nga war a defal yàlla yaa Maryam qunuti bi ki li nga war a defal yàlla nag foo tollu del julli xunóot buñ ko waxee mooy jaamu yàlla ci xunóot noppi lay firi noppi ci luxa waaye fu ñu ko waxee ñaareel ñu ngi ciy namm ci sharia jaamu yàlla ak taxaw wala jaamu yàlla goo xam ne dañ koy yeelu borom bu ko waxee kenn du ko dégg loolu ci namm ci istilaax waaye moo doon tekki ci luxa noppi lim ci nangu na fa ne ko del julli julli nag ñetti maqaama la am julli am na taxawaay julli am na rukkoo julli am na sujjóot mu bëgg koo wan ne ko del yàggal sa taxawaay yi yaa Maryam qunuti sa taxawaay yi ci julli nay yàgg moo tax dafa daan jullee jullee jullee taxawa taxaw ba tànk ya néwi mu jigi am ay góom ñu cay génnee dëtt ngir taxawaay bu yàgg moo tax li ko yàlla defal rëy na de waaye moom tamit yàlla rëy na de loolu la ñaareel bi tamit mu ne ko del rukkoo mooy ñaareelu maqaama bi ñetteel bi mooy del sujjóot léegi na ci mufassiruna yi dañuy wax ne shari'am bi sujjóot moo jiitu woon rukkoo moo tax mu ne ko wasjudi doon ko wax ne ko war ko war ñu ne foofa seen shari'am bi sujjóot a jiitu woon rukkoo ñenn ngeen ne déedéet nag ci balaaxa waaw toftalehu tartib dafay toftale ñaar yëpp def ko rek waaye bu leen faala ëndi nga ne wal tarti yi bu dee suma ñu ne wal sumali tarti bi bin fi saali waaye wal faali tarti bi bitti saali mais mais nag bu fekkee waaw la tu fii du istiraak ya day tekki ne ñaar yëpp def ko rek waaye du tekki ne bee war a njëkk bee war a jiitu wax jooju moo gën a wér kon nag ñetti maqaama yi julli am nang nga ci sonn ba ñëpp xam ne sonn nga ci na sa taxawaay yi yàgg na sa rukoo bi di yàgg na sa sujjóot bi di yàgg boo demee ci hadis yi dañuy werante ñaar yi bu ci gën taxawaay bu yàgg ak sujjóot bu yàgg ndax hadis dafa ñëw ne boo taxawee diirab li nga taxaw yàllaa ngi sotti yërmande ak njéggal ci sa kaw boo sujjóotee nag dafa mel ni yaa ngi sujjóot ci sa kanam borom ndax was wasjud waqtarib moo tax ñenn ñi bu ñuy julli ci saalixuna yi dañuy yemale rakka yi mu tuuti te taxawaay ya yàgg xam nga bu ñaan yonent bi sallallahu alayhi wasallam yaa ayyuhal te lu naafila ya bëri mos ta passé fukki rakaa ak léeg-léeg juróom-ñett ak safaag witar taxawaay yaa yàggoon taxawaay yaa yàgg waaye nag am ci ñu ci lenn ci borom xam-xam yi daa ñu jàpp ne sujjóot yu gën a bëri moo gën a bëri la sujjóot ya gën a bari mooy nga fexe ba def fukki rakkaa wala nga def téeméer rakkaa ci guddi gi tam sax nga xam ne taxawaay ya du yàgg waaye rakkaa ya day bëri loolu nag day am am na ki ñoo xam ne seen julli comme 504 ñu ko mercedes day gaaw lool fukki rakaxa yi moom balaa 15 minutes ñu dóor ko dem reer yi taxawaaye ya dara du ci xul walaawu la ñuy tari gaawru koo dem su demal ba tey baax na lañ man buñ leen ko xeebal nañ ci sax rek kon ba tey yooyu yëpp baax na léegi nag mariama sayyidatuna mariama yàlla wax na lim ko defal bam ca bàyyee koo daanee aaya ja timit moom lim war a defal yàlla moo tax koo gis mu jariñu bu la nëbbut xaw naa dee dañoo laaj njariñ ne ko foo nekk foo nekk suba ba léegi ñu ngi lay wër mu ne maa ci gannaaw coono moo tax njariñ foo ko fekk dafay làqatu ci gannaaw coono ku sonn jariñu ku sonn ki coono bu teguwul ci yoon nag laa wax waaye léeg-léeg nit ki sonn coono bu teguwul ci yoon boo sonnee too coono bu teguwul ci yoon dafa la yokk coono rek waaye boo sonnee coono bu tegu ci yoon dafa la yóbbu ci coono buy daqal coono waaye boo sonn ci coono bu tegul ci yoon coono bu dul jeexal coono lay doon coono bu dul jeexal coono nag yàlla na ci yàlla musal yàlla nag magam boppam la kum defal lu baax ñaax la ku bañ ko la ñaax bu la yàlla defal lii nag ni mu fooree mu xamal ko yonantu bi ci xisaab xanatu bintu faaqut xamal ko xisatu ala imran xamal ko xisatu noox ak ak sayduna aadama ak ibrahim tànn gi leen yàlla tànn ak fi mu jaar ak maryam ak fi mu jaar yàlla nag di ñaax yonantu bi ne ko lii nag booye boo sant ma maa la ko xamal waaye xamoo ci woon dara ku ku bañ ku la ñaax bu la yàlla defal yàlla kum defal ñaax la gisoo sax moo ñu may ñiy lekk ka naan moo tax fu mu toll ci alquran kulloo washrabu am na koo xam ne boo ko waxee mu mu mu mu gedd ñam tegal ko ganaar yi ba mu fex ne ko wan leen mu wane gannaaw waaye yàlla na dafa ne kulloo wasrabu boo ko wanee gannaaw foo jëpp yooyu yëpp amaru imtinaan la dafa ñuy ñaax mooy mënuñ ci dara yàlla sañ naa ñaax jaamam waajur sañ naa ñaax doomam sëriñ sañ naa ñaax taalibeem ñett ñu dul ñii am amuñ droit ñaax ñett ñii rek ñoo mën a ñaax moom lay wax si nii yàlla ngi ñaax yonantu bi ne ko zalika loolu lépp ma nettali la ci xisaay sayyidatuna maryama min ambaayil bi mu ngi tukkee ko ci so maanaam solo yu fàddu yi nuux yi ñoo ko wax yu ilayka jëm ci yow wa maa kunta nekkoo woon la dayhim fa ñoom is yulquuna waxtu wa ñuy sànni ak aqlaambahum seen xalima yi ñu daan bindee tawreet nekkoon ñaar fukki nit ak juróom-ñaar ñu ngay xëccoo ayuhum ku mu ci ñoom yekk fa lu mooy yar maryama maryama nekkoo fa woon wa maa kunta nekkoo woon la dayhim fa ñoom is yaxtasimuuna waxtu wa ñuy xuloo xuloo ba nag mooy njëkk sànni bant waaye dafa ko indee noona ba tey tamit nekkoo woon id qaalat ba waxee almalaayikatu jibril ne yaa maryamu he yow maryama inna laa naka yàlla yu bashiriku dana bigal la bi kalimatin ci kàddu min hu gu ko ci moom koo xam ne bu ñëwee ismuhu turam isa mooy isa ca kanam laqabam mooy ibnu maryama kun kunyatoom mooy almasiixu wa jihan mu nekk borom ak daraja fi dunia ci àdduna wal axirat ak alaaxira wa min almuqarabina bokk na ki ñu jegeel yàlla ña ñu jege yàlla la lii lépp xamoo ci woon dara maa la ko xamal lii lépp fekkeewoo ko woon maa la ko nettali kon nag yow yonantu bi bu ma ñëpp bu ma ñëpp sante benn yow sant ma junne li ma la defal defaluma ko ker kon dafa koy ñaax dellul ci baat yi lii soloy fàddu la ñoo la ko wax mu ne nuuxiihi baatabu wax yu boo ko fekkee ci alxuraan rek ñeenti façon la dana wax wax yu namu ci lu bàyyeekoo ci malaaka wala mu bàyyeekoo ci yàlla direct ñëw ci yonantu bi waaye naka koy am mursal lay doon ku yoon yónni ndax wax yu maratib la boo demee ci téere yi dañ la indi maratibul wax yi su ko defee boobu benn martaba la ci bàyyee ko ci malaaka directement ñëw ci ñëw ci ñëw ci yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam kooku mooy nuuxihi dana wax wax yu namu ci ilham lu bàyyee ko ci yàlla mën naa jaar ci malaaka ñëw ci jaamab yàlla waaye kooka nag duhub yonantu kooku moom la yonent moom la sayyidatuna Maryama am du du yonentu waaye yàlla wax yu na ko moom nga jàng mu ne waa waxay naa ilaa ummi Muusa a ah, ah, waxay naa jooju wax yu ilham la loo xam ne yàlla la ko yenkiwal toog rek yàlla sànni la message bi yàlla dana wax yu tamit sànni namu ca ilqa sànni suuf dafa ëmb mel ni suuf ëmb na buñ demee ba àdduna bi tukki day matu nag la mu ëmboon lépp mu imbi ko yàlla ne ko lu la tax a imbi li nga ëmboon mu ne bi anna rabbaka awxee laha yàllaa ma wax naa matu looloo waral matu naa or bi fi newoon nag jamaa beeg pétrole beeg néew yi fi newoon yépp ak liñ ma suuloon ñëpp matu naa leen kenn desatut fi loolu kon ca la bokk beneen waxyu gi yàlla da koy wax namm ci maanaam maanaam ishaara mooy junji moom nga jàng mu ne fa awha ilayhim an sabbihu bukratan wa ashiyan kon foo fekk waxyu ci alquran bul gaawtu seetal ba xam ñeenti yi ban la ci ñeenti yi benn rek la ci mën a doon nag waxyu ilham waxyu irsal wax yu ishaara euh, goo xam ne dañ la ko junji pour nga mën koo xam ak wax yu goo xam ne ilqaa la ñeent ñi rek la Isa ñett la yàlla toftale ci moom ne ismuhu ne masiix masiix kunyatoom la waaye du turam baat bi fu mu dañ see wuute waaye ci abraniya ñoom siinu mujama la doonoon mooy ñetti tomb masiix ñu tomb ko ñetti tomb boobaa nag moo doon tekki almubaarak kuñ barkeel waaye boo ko toxalee ci abrani indi ko ci arabiya muumala lay doon su boobaa nag ah, ñi dañ ne mi ngi mi ngi xaree ci siyaaxa touriste yonentu yàlla Isa fu ne dëgg na fa tànkam ci àdduna bi waaye su boobaa boo ko jëlee nag mu bàyyi ko ca siyaaxa da nga miim gi dafa dolleeku ndax ba miim gi amul cosaan ak baat bi ibnu abbas laa tànn waxam moom dafa ne mi ngi bàyyi ko ci masfu rek ndax yàlla barkeeloon loxoom ba lu nit feebar feebar bu la raayee rek nga nga wér ca saasa moo tax danañ danañ ci yegg si benn bis rek indil nañ ko juróomi juróom fukki junney malaat mu mu maanaam mu saafara leen loolu na yaakaar naa suñu gaa yi heggaguñ ci benn benn médecin bu enteré juróom fukki junney malaat ci benn bis bi nga opéré leen ñoom ñëpp ñu wér yonentu yàlla Isaa moo ko mës sa def kon nag ba tey nañ yokk seen hitti rek ndax nag moom mooy maamu médecin yi bu ñu yokkee seen yitte yàlla mën leen cee gën a dimbale ci xam-xamam kon loolu mooy baat bi ibnu abbas ne musul laal borom ak gàq-gàq lu dul ba wér na dana ñëw sax ci kanam dañ ko jàng waaye boo jëlee mari euh, maanaam isa mooy turam yàlla tamit nag indi laqab bi ne ibnu mariama da ngeen wax ne waladullahi déedéet ibnu mariama la kii mariama ko jur te gis nga boo gisee mariama yàlla tudd ko ci alquran ak turam bëri ci alquran xikmatu ba mooy dañ koo tuumaal ñoom nasaraan yi ñàkk a xam ne soxnaa yàlla la te bokkul ci aadaay nit ku màgg muy tudd soxnaam ci mbooloo kilifa gu mat kilifa foo ko fekk ñaareel mbooloo du tudd soxnaam tudd sa soxna ci mbooloo foo ko fekk kilif ga manqué na kilifa ga na waaye gis nga ne moo tax yàlla tudd Mariama mii ñu tuumaal ne soxnaam la mu tudd ko lu bari ci alxuraan wane du sama soxna bu doon sama soxna du ma ko tudd ko loolu kon loolu xikma bu am bu am bu am solo la kan moo koy yar wax xuloo bi xuloo bi nag moo jiitu sànni xalimba ya dañoo xuloo xëccoo kenn ku nekk duñ la ko bàyyee Sakariya ne may denc tàntaam bàyyi leen ma ko ñun du fi am ba mbir ma métti nañu ne ko dañ dem wantale ji kon is yulquuna aqlaamahum moo mujj is yaxtasimuna is a mooy jiitu ba pare lii door a mën a am kon moo tax alquran duhul ne ni mu toftaloxee ci la xisa yi toftaloxee noona su ko defee tamit yàlla bégal ko ne ko nga am doom nii lay mel borom daraja dana nekk ñu ñu gën a jege yàlla léegi nag doom ja miraaka yel yàllay def ci moom lay wax si nii moom timit ma ngay yéemu comme ni yaay yéemu woon naka laay xamee doom te maa ngi nii awma jëkkër te musuma mooy yàlla ne ko yàlla dogal na ko pare kenn mënu ki dara dana am moom lay wax si nii mu ne moom Isa wa yukallimu dana wax ak naasa nit ña fil di mbir mu muy nekk ci laytaay nekk xale wa dana wax ak nit ñi tamit ñu yónni ko këhlan ci mbañ ruus wa dana bokk mi mina saalihiina ki ñu baax ña bu ko defee xaalat wax na moom sayyidatuna Maryama ma nga yéexee mu ne rabbi yow sama borom année naka lay nekkee lii ñeexal ma wala dun doom walam yam sas nii te musul jonjoog man basarun góor xaala sama borom ne ko mbir mi de kazaliki noonu la demee ci yow man dogal naa ko ba pare dogal naa danaa bind doom ci lu duhul jëkkër doom ji war a am yaay te du am baay. man mi koy dogal nag allahuma yàlla yàlla moomu ko mooy bind maa yashaaw la ko soob mooy koo xam ne ida qada na mee dogal amran mbir fa innama yaqul daana wax la ñeel mbir ma ku nekkal fa yakoonu mu nekk kon nag loolu kenn mënu ki dara te kooku bu ñëwee wa yuallimuhu am na ñu jàng wala wa nuallimuhu danañu xamal ko alkitaaba ak mbind kitaaba bi maanaam kitaabata wala xikmata ak attey sharia wa tawreta ak tawret wala injil ak injil yépp dana ko ndar kepp du ca yem wa danaa ko yónni rasulan muy ndaw ila bani israila jëm ci waa bani israila gépp ñëw na sax mu ne am naka man xat jiitukum dikkal naa leen bi ayatin ci kaawteef muy tekki ne sama borom ma yónni min rabbikum bàyyi ko sama borom andi naka man axluqu danaay melal doo ko firee bind bind yàlla rek moo ko man danaay melal lakum ñaale mi ne tiini ci ban bi ka ati tayri mu mel ni ki melaw njanaaw fa an fuqu mawal fihi ci moom fa yakoonu mu nekk tayran di njanaaw am nañu jàng fa yakoonu mu nekk tairan di aji naaw bi isnillahi ci ndigalal yàlla wa ubrihu danaa wéral al akmaha gumbaak juddoo xaale wal abrasa ak feebaru baas wa uhi danaa dekkil almawta way deeñi bi ismillahi ci ndigalal yàlla wa unabbiukum danaa solo leen bi ma taakulun ci li ngeen lekk lu waayu añ taxaw sama kanam danaa la wax loo lekk wa ma taddaxiruuna ak la ngeen dëxëñ fii buyootikum seen néeg yi inna fi zalika naka nekk na ca loolu la ayatan kaawteef guy tekke ne yàllaa ma yónni lakum ñeexal leen in kuntum dem nekk ngeen moom leen di way gëm waaye waaye xam nga ne li yàlla rek ko man du yàlla yàlla rek yàlla moo tax mu ne dana leen waxee ñi delluwaat ci baat yi wa yukallimu naasa fil mahdi dana wax ak nit ñi ci laytaay la wax nekk xale wax saar wi ala imran dafa wax wax ja waaye waxul lam wax soo bëggee wax lam wax demal ke suratu la mu wax mooy inni abdullahi ataaniyal kitaaba wa jaalani nabiyan wa jaalani mubaarakan aynama kuntu wa awsaani bis salaati wa zakaati maa dumtu xayyan wa baram bi waldati wa lam yaj'alni jabbaaran shaqiyan kon wax ja fa ko foo loolu dafa wax dana wax rek waaye la muy wax Mariama koy wax mu ne dana wax fil mahdi ñi wax ci seeni laytaay histoire juróom-ñaari nit la ci bind juróom-ñaari mës a wax ci seen ndaw ci seen berceau juróom-ñaar ñooña ah liir yonentu yàlla yuusufa fa ci la bokkoon bañ tuumaalee yuusufa naan moo sàkku soxna seeg nàngam alquran a wax ne wa shahida kooka ab liir la boo xam ne wax na ci ndawam ñaareel bi saaxibu juray juray ji xaleel bu ndaw la wax na ci ndawam benn buñ ko ñu tuddee maanaam saaxibul jabbaar nga xam ne benn buur lañ romb gaa yi escorté ko moto ya romb ko oto ya bari gaa yi di ko tóojal yaay ji na yow yàlla yàlla nga ma may doom ju mel nii ñi demaat dawaat tuuti gis waa joo xam ne ñu ngi koy dóor ne sàcc la dàll ya di ko dóor di ko dàqe mu ne yàlla nga musal bu ma xam doom ju mel nii sama doom yàlla bu mel nii fekk mi nga xam doom bot ko yàlla doom ja ne yow yàlla yàlla boo nangu sama ñaan ak yaay gi ca ci buur bii waaye yàlla nga nangu yàlla boo nangu sama ñaan ak yaay gi ci sàcc bi man ni sàcc bi mel laa bëgg a mel mais bëggumaa mel ni buur bi mel ndeke sàcc ba waliyu la dafa ko nëbboo rek te nit ñi xamuñu ko buur bi tamit kum romb ñu ne iskay cey waay waaye bu rooxu gay teqalikook jëmm jëmm dellu ci wëy yaay cey yaay ji dellu ci wëy yaay nag jarom jarul ñee kon nag loo mën a kon kii bëgguma mel ni moom koo ko wax na ki ci tegu timit saaxibu uxduud xutila asxaabul uxduud jàng ngeen ko foofa dafa am koo xam ne dafa boot doomam te booba nasaraan bi da waa gi dafa ne ku ñëw weddi ku weddi hut diine nasaraan ma lakk la c'est buur bu bon booba lu ne mu def ko am koo xam ne dafa ànd ak doomam boot ko ndeysaanam mu mu ne ko weddil li ko may yàgg sa doom ji yëpp yaay ji bëgg a weddi doom ji ne ko yaay bul weddi bu ñuy dugg ci biir safara wi rek suma borom moo ñuy taawu ñu dem xeewoo ji aljana kooku liir bu ndaw la wax na danañ ci yegg mas nañ koo wax sax yonentu yàlla yaxyaa wax na ci ndawam yonentu yàlla Isaa mi tamit wax na ci ndawam ah, ah, ah, maanaam doomu maasitatu maasitatu soxnay firawna la woon dafa yore woon benn peñe mu rëcc ko rek muy daanu mu ne bisimilah doom ji ne ko waaw bisimilah yi moom ngay tudd koo ci na ma xanaa sama baay mooy sa borom mu ne ko déedéet ki bind sa baay bind ma kooka moom am lay namu ndeke firawna dégg na leen ba leen déggee nag ñoom ñaar ñëpp mun dalee daleen ni daleen ni lakk mbugal leen doom ji ne yaay dañ muñ rek buy teq bu ñu teqalikoo ñu dem aljana kooku tamit wax na waaye gis nga li ci yàlla tofal moom mooy li gën a am solo dafa ne fil mahdi lu mu ca teg wa këhlan mbooleem juróom-ñaari liir yi ma wax leen dañoo wax ñoom ñëpp dañoo dee ci seen ndaw mbooleem liir bu mos a wax ci ndawam rek du gudd fan mennam yonentu yàlla Isa moo ci gudd fan yàllay dalal xelu yaayam ne ko sa doom ji wax na cig ndaw mais dana màgg ba nekk mbañ ruus mu wax ma yónni ko ci ay nitam moo tax dem na ba nekk am fanweeri at yàlla door koo yónni mu ñëw ci banu Israël sax fa ñetti at di leen woo gaa ya fexeel ko bëgg koo rey jël tatt yaa nuus mu fekk ko ci néeg bi bëgg koo rey yàlla solal ko mbubbam ma yéege ko ci asamaan alquran wax ko wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum ak bar rafaahu laahu bu ko defee mu mucc mu dana ñëwaat nag mu jëg jamono amaat fi juróom-ñaari at mu complété euh, fanweeri atam ak juróom-ñaar ñeent fukki atam ya mat mu door a dee dee ak dëgg-dëggal kon dafa koo bëgg a wan ne na sa xel dal sa doom ji fanam dana gudd wax na ci ndaw waaye bokkut ak ndaw ya waxoon dee juróom-benn yooyu moom dana ci mucci moo tax mu ne ko wa këhlan gannaaw loolu mu ne ko wa këhlan dana wax ci mbañ rusam ma yónni ko su ko defee Maryama bëgg lu gën a leer nu may amee doom taw ma jëkkër te ma nekk mooy katu yàlla mu ne ko dana am kenn mënu ci dara man bind naa koo xam ne amul ndey amul baay bind naa koo xam ne am na ndey am baay kon borom xel yu ñëw yi danañ laaj ne waaw ndax man yàlla damaa lott ci bind koo xam ne day am ndey te du am baay ci yow laa ko bëgg jaarale nag moo tax bam ne inna masala isa inda allahi ka masali adam xalaqahu min turabin tashbihul gharib bil agrab la tumuranke niroo la li gën a tumuraanke ci lu tumuraanke rek mbiram aadama moo gën a yéeme mbiram mu saraf téeméeri yoon yonente yàlla aadama fekkut fi dara yonente yàlla insaana fekk na fi yaay ki amul yaay am baay juddu moo gën a yéemu ki am yaay te amul baay door a juddu su ko defee na mu ne ko loolu danaa ko def kenn mënu ci dara mu ne ko tamit wa yuallimuhul kitaaba am nañu jàng wa nuallimuhul kitaaba kitaaba nag maanaam kitaabata moom dafa rafetoon loxo ku mën a bind la da daan jàngal sax xale yi bind yonente yàlla Isa néew na ko ku gën a mën a dàq bind ñaareel bi mu ne wal xikma mbooleem atte yi tawareet ëmb ak linjiil da ko ndar keppoon xam ko loo ko laaj ci sariya mu mu tontu la mufti la woon piir mu mu door a indi tawreet ak linjiil nag mu door a nekk rasulan ila bani israil mu nekk yonantu ci banu israil ñëw na sax mu ne yéen ab yonantu laa kaay leen tekki na yonantu danaa fekk ban bi ma jël ko mooñ ko def ko ba mu mujj soppeeku picc xam nga ku jël ban di ko leem di ko def di ko napp nappal ba mu soppeeku picc mu ami mbagg nga wal lañ ca wal muy naaw waaye yàlla na ku ko topp nga doon wan ne maa ngi yow duñ benn piccam mii kat bu ko defaan ba mu wal naaw xam nga fi fanam di yem bu naawee ba ni nga gisatuñ ko rek mu dee kon wuté nak piccam yalla mi piccam yalla mi mom buñ ko gisé ma ngay dund buñ ko gisul ma ngay dund waye mom picc mom mësa bind bu ko bu ko ne ko demal bu naawé bu ko kenn gisatul rek fofu la fanam di hem koku moy anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfaqu fihi fa yakunu tayran bi idhnillah kon fofu la hem ñu ne ko nak légui ah picc yépp ya, bi ci gëna jafé bind moy lupa lupp xam nga lupa lupp lu yéme la dañ ko gis ni moom dafay dafay dafay gis reegal comme jigéen lu pàllu en même temps day day jur doom comme nit xam nga liñ miin lu am mbagg di naaw rek day nen moom nag muy naaw boole ko di jur doom di gis reegal moom lu pàllu li ci gën a yéeme du gis guddi du gis ba bëccëg moom vingt-quatre heures yépp ñaari waxtu la ci gis bu jant bi sonoonu lay gis ba benn waxtu njugub bi laa bëgg a wax kon njugub bu maanaam buy kii bi buy buy kii bi jot bu jant bi di kii bu jant bi sol lay door a gis <laughs> njugub piir laa bëgg a wax bu demee tamit ba ba fajar xar mi julli noonu foofu la gisee ñaari waxtu kese vingt quatre heures yëpp deux heures de lay gis ñaar fukki waxtu yeeg ñaar yëpp mu gumba ko xam ngeen ne kon njugub yéeme na de moo tax njugóobam bëccëg moom foo ko fekk day tampon rek yéen a ngi ko gis sax bu ngeen leen dàqee loolu yaakaar naa xale yu bari xam nañ ko dafay gis reegal day jur ñu ne tamit day re day ree comme ni doomu aadama di reexee xam naa nag ku gis fu njugub buy ree moom da nga jommi <laughs> waaye loolu moom loolu loolu la ko yàlla defal te tamit day naaw mais naawee wut mbagg nekkul ne ay mbaggam lay naawee de loolu tamit xam nga lu lu yéeme la ma ngay naaw mais mbagg yi naawalu ko looloo waral nag muy naaw ba pare jàllal bi ko di am doom au lieu que muy nen kon miracle yi nekk ci njugub su ma ko doon wax fi la ñuy fanaan gaa yi ne ko nag dañoo bëgg nga bind njugub ñenn bind na njugub ci cardinal yàlla ñenn njugub waaye lu ca mën a am daana fekk médecin médecin médecin yi li ñuy xereñ xereñ jàngoro juddoo xaale mënuñ ci dara baras ak gumba ak juddoowaale dara lañ ci mënut mën ngaa cataracte gaa yu opeere la mën ngaa dem amee feebaru gulukum ñu jox la ay yeneen garab ak fu ñuy jaar di ko calmer waaye ana waa ji ñu ne dafa juddoowaale gumba ana médecin yi mënuñ ci dara waaye moom dafa daan fekk ku gumbe ku gumba ku gum ku juddoowaale gumba mu raay sa bët yi nga xool mu fekk ku feebar feebaru baras mu raay la nga wér ca benn bis entraîné na juróom fukki junney malade ñépp bu saafara leen xam kattan la mu des nag benn wuuxiyil mawtaa la wax dinaa dekkil ñu dee ñi ñeenti nit la mos a dekkil ñu dee ñeent waaye nag kenn ki mi ngi tudd Azus xaritam la woon fi mu dee ak fi yonente yàlla Isa nekkoon ñetti kilomètre la mu dem seeti ko dekkil ko keneen ki mooy Ibnul Ajuz kooku moom dafa dee woon ba ñu teg ko ci dat tàdd gi dem di ko suuli ñu romb yonentu yàlla Isaa mu ñaan rek mu dekki wàcc tàdd gi sulaat yéreem ya xam nga ñëpp danañ daw ibnatul ashira kooku jigéen la deewoon na mu dekkil ko gaa yi nag commencé na waaye kii kay moom mënu dara li man mooy dekkil néew bu yàggul rek mais néew yi nga xam ne dee nañ lu ëpp ay fukki seekal mënu ci ñoom dara mu ne wan leen ma ko ñuy wan ko saam saam mi nga xam ne fi mu dee ak fi yonentu yàlla Isaa génne feeñee ëpp na ñett ne at mu ñëw ana bàmmeelam ba mu fëgg ko rek mu jug ba mu jugee genn wàll bopp ba yépp dafa béjjaaw ñu ne ko yow bi ngay dee béjjaawoo lu tax nga béjjaaw mu ne bi ñu fëggee sama bàmmeel bi buur wi bi dama foogoon ne bis bañ ca taxaw te yow ma yekkoon wil daanu siiban ma foog ne bis bañ ca taxaw ma tiit moo tax ma béjjaaw parce que béjjaaw bi mu xewee yàggut aadama nekk na fi mosta fii sa mosul béjjaaw idrisa mosul béjjaaw yonentu yàlla noox mosul béjjaaw jaaw mi ngi xewee ci yonantu yàlla ibrahim foofu la yonantu yi commencé béjjaaw moo tax bu béjjaawutoon kenn du béjjaaw moo ko njëkk a gis ba mu gisee béjjaaw ne ko waaw yow yàlla lii nag mu ne ko waqaar la wegu mu ne ko kon nag zidni waqaaran yow yàlla yàlla nga ma dolli wegeel waaye loolu ba tey valable na lu muy tekki képp koo gis mu nekk ndaw jox ko yàlla di jaamu yàlla di jaamu yàlla ba béjjaaw jaaw bu am wegeel lay am béjjaaw ba day leer ko gisee rek xormaal ko sa bakkan sa ndaw jox ko bakkan jox ko seytaane ba xëy dee ba xëy béjjaaw sa béjjaaw ba mooy gën a ñàng sayu ñax boo ko gisee moom sayu ñax duñ sore kenn du xam lu muy niru waaw waaye nag ñeent ñi mu dekkil ñépp ñett ñi dundaat nañ ba am doom door a dee kenn rek moom la ci dekkil mu dee ca saasa mooy saam saam ibnu Nuh moom da koo dekkil mu wax ak nit ñi la muy wax deexaat ñeneen ñett ñi ma wax nag dundaan nañ ba amaat doom door a génn àdduna xam ngeen ne kon lii li léegi yàlla rek ko man waaye gis nga ko tamit jiñu ko boppam lu mu wax rek dafa ne biis ni laay maa ngi ko defee ci ndigalal yàlla mais defuma ko sama kartan kon lii yàlla rek ko man li gën a yéeme tamit ku añ ci xale yi taxaw ci kanamam mu ne yow tey maafe nga añee yow suppu kaañ nga añee yow ceeb nga añee yaa ngi nar a reeree soom bi loo nar a reeree sax mu wax la ko loo denk sa néeg ñu wax la ko mu jigéen nag parents yi di dàq seen doom yi bu leen de bu leen dénn tege xeesa da leen di yàq bu leen fa demati moom bu toogee ba heure jàng jot mu ñëw di leen seet ñu ne ko xale yi nekkuñ fi génn nañ mu ne seetal leen ma ngi nekk ci biir néeg yi gaa yi ne ko néeg yi kenn nekkut fi waaye buñ demee rek comme dañ leen dañ ko koy nëbb rek buñ buñ buñ ubbee bunt ya ñu soppee ay mbaam xuux ak ay golo ab yonantoobu yàlla kenn du ko xañ ci réew mu jigéen ak gaa yi dàqatuñ seen xale yi ñu ne lii moo fi sës moo tax kon nag fii buyutikum maanaam wa maa taddaxiruuna fii buyutikum lu ngeen denc man xam naa ko kon lii yëpp ay miracle la yu yàlla jagleel yoon ci yàlla Isaa ñi daanee ci nag li ci des tuuti la mu ne ba tey wa mu ne wa musaddiqan may aji dëggal li ma bay na yeddaya ñeel li ma jiitu woon mi ne tawreet ki tawreet wali uxilla ngir naa bagana lakkum ñeel leen baada lazi lenn ci la nga xam ne xurima xaraamaleef na ko aleykum ci yéen wa jiitukum dikkal naa leen bi ayatin ci kaw téef mi rabbikum booy ak seen borom fattaqullaa na ngeen ragal yàlla wa ateexu ni na ngeen ma topp inna allaha naka yàlla rabbi mooy sama borom wa rabbukum mooy borom seen faabuduhu na ngeen ko wéetal cig jaamu haza lii ma wax siraatun mooy yoon mustaqim wu jub kocci ku ko topp nekk ci yoon wu jub kocci wi ku ko bàyyi sànku kon nag yonentu yàlla na saa ngóog fekkoon na avant muy ñëw yahud yi dañoo bewoon xeeti ñam yu bari yàlla xaraamal ko ki ñoom fa bi zulmi lazina haadu xaram na alayhim tayibatin jàng nga ko yooyu yépp ñu xaraamal ko ki ñoom yàpp gëléem ak yeneen xeeti yàpp yeeg gerees ak yeneen yépp moom nag ba mu ñëwee sëf boobu ñu sëfoon leen moo leen ko teggil mu ne war naa tax nag ngeen gëm ma wali uxli lakum ba'd lati xurima alaykum ma andil leen kaawteef yu leer nañ ñuy bàyyi ko sama borom kon nag na ngeen jaamu yàlla wéetal ko kon moom xëy na nitam ña taxe gu ñëw man xiyaam Isa yey na nitam ñépp taxe gu yowmal qiyaam li mu wax lu leer la li ci alquran si tamit lu leer naññ la ku ko topp jub ku ko wan gannaaw sànq teg leen seen baaraam yi foofu bañ ci si